Euh, tay ñi ngi fi ci Kolda ci prison bu Kolda ñëwoon doon euh, réceptionné pi bi nga xamné suñu mbokk bi moom moko ko financé defe naa ne bi mooy euh, huitième puits suma juumul yoo xam ne def nako fi fi ci prison itam bi moy 2e puits parce que amna benen beneen bu ñu def Matam ah soo ko ñëwaat fi def fi benen fi ci Kolda mu nek lo xamanteni dina dimbalé ñi nga xam ne ñoo fi nekk ci fan yu bari ci ndox bu ñuy naan mais aussi tamit dina leen permettre ñu mëna def ay culture maraîchère comme ñu ko gisé fii nii bi nga xam ne loolu dina dimbali prison bi bu baax a baax parce que ay jaamu yàlla ñoo fi nekk ñoo xam ne xëy na nattu moo dal seen kaw waaye ni biti soxlaa ndox ñoom def naa ñoo koy gën a aajowoo te loolu ku ne dinay dégg tamit xibaar yi xew ci euh, maison d'arrêt yi seen wàllu ñàkk ndox kon defal leen ab teen ci biir dana yombal lu bëree bëri seen nekkin te comme ni nga ko xamee financé teen mbir la moo xamante ne la ci nekk tuyaaba tellement bari na ndax non seulement day dundal doo doomu aadama day dundal gàncax naka noonu tam day dundal Euh, maanaam li nga xam moom mooy animaux yi te lépp lu ci nekk rek koo jëriñoo loolu maanaam tuyaaba la tuyaaba boo xamante ni kenn mënu koo natt ndax doy na rek ñu xam ne lu mel nii naan dal benn xaj yàlla jéggal na ci jigéen joo xam ne danoon jaay boppam kon su fekkee lu mel noonu am na dana sawarloo ku ne képp kuy def mu def te yàlla tax joxe nit maanaam joxe ndox pour nit ñi mën a naan kon nag yàlla ko yàlla fay yiw yàlla aussi tam bëril ay moromam parce mbir mi tamit ñu xam ne ku ci nekk boppam lay defal ndax jëf yi dañu am lu ñuy tax wax effet boomerang li ngay defal doomu aadama yi day dellu si waat ci yow doy na rek la yonent Yàlla sallallaahu alayhi wax ne euh, ku taxaw sa mbokku jullit yàlla taxaw la àdduna ak alaaxira ku la ko teggil njàqare itam yàlla teggil la ko àdduna ak alaaxira kon loolu ay wax la yoo xamante ne dafay encourager nit ñi pour ñu continuer di def lu baax ñu xam ne ku lu waay def rek boppam la ko defal. Oui, donc juste pour euh, dire que les puits que, que réalise Sakuyu ne sont pas que pour des villages éloignés, etc. Donc à chaque fois qu'il y a un endroit où le besoin d'eau est connu, nous essayons de le, satisfaire. Donc euh, y compris dans des maisons d'arrêt et de correction euh, qui, détiennent une population qui a également ce type de besoin. Donc ici à Kolda, ce puits va desservir le potager que nous voyons ici derrière qui a une utilité pour les détenus. Mais également, il y a des coupures d'eau, des, manques d'eau qui vont être palliés désormais par ce puits. Donc nous en profitons pour euh, formuler des prières pour euh, cette, euh, ce donateur-là qui a financé ce puits. donc ici, nous avons 300 détenus qui vont donc en, bénéficier. Euh, Barakallahu Fikoum, Sakuyu, c'est une mission... Euh, euh, d'intérêt public pour l'accès à l'eau là où le besoin se trouve, l'accès à l'éducation là où le besoin est connu, l'accès à la santé là où le besoin de connu, est connu et, ainsi de suite. Donc tous ensemble, Inch'Allah, nous parviendrons à faire quelque chose de significatif euh, pour toutes les personnes qui sont dans le besoin.